lañ dem seeti juma jooyee ki yaa kat kat musli <laughs> ni musli musli kaay tëj heure bi ñoo dab gaawal gaawal kaay man nag li ma doon wax barki téem ba rek laay ñëw waxaat tey yàlla mooy dogal te yàlla lu mu dogal loolu la man na juróom ñaari fan ma koy woo moom Macky Sall la mu naan ma dinaa la rappeler dama koy woo seen nag yen yéen sénégalais yépp ngeen xam ne man Mously Diakhaté lépp lu may wax lu leer la te dama leen jël en témoin li ma daj ci parti bi xanaa lii taala si laa sa bu ko yëgee dina ma ree ko taala si laa sa bu yëgee lii dina ma ree numéro Macky yéen ñëpp ngeen toog seetaan en direct ma woo ko Macky Sall moom dina ma wax tey lu leer Macky Sall moom moo may wax tey lu leer nekk ci parti bi sonn ci ba bëgg a dee moom tey dina ma wax lu leer voilà mu ngi nii ma ngay dem gis nga ma ngay sonn jëlul nii lay def du jël allo kooka laa boobeel man soxlawuma la de Macky laa soxla ndax man ma soxla pour ma jàppale ko ci sama numéro bii la ma kon nag war ta falo rek di tekki sama numéro ma ne Abou Abel wuyu ma dama ma ne dama ne dimbali leen ñu ñun gis nañ fi commencement nguuru Ablaye Wade li nga def nii du way da ak nit ñi te xam na ne bi dama man du ma xuloog yow yoo xanaa tey nga a xuloog man waaye man mos leen jaxate billaay bu Macky Sall gañee yàlla ak man a tax ndax man maay première femme bi rali ñëw ci moom nga ne waaw paas ma ko ñëw ñëw il fallait ma tàngal de <laughs> boo tàngalu dañ lay yëpp allo waaw Macky na nga def man la musli waaw Macky dama déggagul dara ba tey boobu léegi dafa yàgg te mbokk yaa ngi jóge fu waa Tamba waa Touba yeeg Mbacké Daaru min na mag ñëpp a ngi ñëw waaw wax ma ma xam fi may féete ba nga yaa may woo ñaata deux minutes waaw man dama coupé yéen tàngal naa lii su ko defuloon billaay wallaay taalaay lii su ko defuloon Macky du réagir allo eh, maa ngi dégg muy wax naan lijjanti leen musli bu yéen yow yàlla laay laay lii da jar naa cak cak cak cak cak waaye ni caxagoon lii da jar ko allo Abou Abel waaw ma Macky nee ma xaar waa d'accord oui sama cak cak cak cek cek cek caxagun cek cek cek cek cek cek cek cek cek allo waaw Macky nga ne dafa fees yaay mbokk yi mais mbokk yi émission bi liy seetaan yëpp sama ceinture dañ koo sàcc ndekete pantalon bi buum laa ko takkee buum laa ko takkee ceinture bi ceinture bi buum laa ko takkee ceinture bi buum laa ko takkee <laughs> amul ceinture